Amadou maa lay fay suba saa ngi nii rek du nuyu euh, Mamadou Mouhamed Niang ak maam Jibi ak bokk yu seetaan Eye Africa TV rawatina Good Morning Africa. Ah. ñu daal di koy euh, daleek yéenekaay yu ñu am tey tey am nañu ñaari euh, ëttu këru yéenekaay benn bi di standard beneen bi di Foroyaa bu ci nekk nag ci ñaari xëy nañu bind lu yaatu si seen xët yu njëkk yi su ko defee rek dañuy daal di dem ak yëglekaay bu ñuy njëkk indi. Euh, mu ngi noonu Amadou tey standard la ñu daal di ubbeewaat mu ngi noonu standard xëy bind nag euh, yëglekaay yu am am solo mu am xët yu bari nag yoo xam ne bind na ko waaye dañ ci rek comp aslëf ci yi nga xam ne rek moo ci euh, gën a fës. Amadou ñu dooree kook ki nga xam ne moo di njiital kuréel gi saytu élection ci réew mi muy AIC moom Aliou Momar Ndiaye nag euh, ci coowal li nga xam ne mooy ne taamam bi dafa jeex ki nga xam ne mooy euh, coach Pa doon bañkat maanaam activiste ci rek am benn interview bu mu doon def ci la addu ci mbir mi ne ki nga xam ne moo di Aliou Momar Ndiaye te di jiite kuréel gi saytu élection ci réew mi euh, lu jëm ci appam gi maanaam taamam bi dafa rek daal di jeex juróom-ñaari fan ci weeru avril la jeex ci at mili maanaam 7 avril 2023 ci la rek daal di jeex xam ndax nag mi ngi nekk ci place boo xam ne euh, mi ngi ci waaye nag nekku ci ci loo xam ne rek ci yoon la maanaam lu euh, illégal la loolu la daal di xam le waaye nag euh, yëglekaay bi nag jokk na Aliou Momane Ndiaye lu mu xam ne rek ne mooy moom ñu ngi ko tabbu ci atum 2016 lañ ko teg ci bopp bi pour juróom-ñaari at mu daal di xam le ne dese na ñaari at kon 2025 la war a rek daal di jeexal maanaam appam gi 2025 euh, la war a jeexal bi ñu noppee foofu sax yemuñu ci daal dinañu jokk tamit ki nga xam ne Amadou euh, moo di jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon ak yoonal muy honorable Daouda Diallo loolu it la daal di dëggal nee na ñoom yu ñu yor muy record yi nga xam ne yore nañ ko moom Aline Maman Ndiaye 2025 la war a rek daal di euh, jeexal ñu jàll ci beneen Amadou euh, ki nga xam ne euh, moo di njiiti réew mi nag àdduna ci euh, fitna ak congo gi nga xam ne amaloon nañ ko ci jàngu bi nekkoon ca Bakaw muy cooj bi nekk ci Bakaw ak foofee ca Tali Nding moom nag njiiti réew mi naqarlu na ko daal di koy nag ñaawlu ba ñaawlu yem daal ci xam la it nag di woo doomu réew mi yëpp di leen woo ci jàmm dal ak nangoo dëgg dëkkoo donte que sax wuute nañ ci rek ay ngëm-ngëm nañ ku ne na sàmm sa rek li nga xam ne rek moo di respecté sa ngëmuk morom tey nag du tee ngeen mën a dëkk ci jàmm ndax nag nee na réewum Gambie ci jàmm lañ ko rek daal di xam xamee te nag kon bu ñu ko rek xajamal tey nag réew mi euh, réew la moo xam ne pour ñëpp la amul nekkul pour ma sàmba wala pour ma dem ba ñëpp ñoo ko rek daal di euh, bokk te nag ku ci nekk am nga sañ-sañu gëm euh, li la doy bàyyi keneen mu gëm li ko doy te nag du tere ngeen nekk benn dëkkandoo ci benn te nag doo leen yee benn fitna. ñu wax ci leneen Amadou mi ngi noonu ki nga xam ne euh, moo di euh, njiital euh, languk GDC si di honorable Mama kande moom nag mi ngi àddu ci wàllum njaayum li nga xam ne rek moo di vote card muy rek lu jëm ci rek selling votes moom nag mi ngi leen artu askan wi rawatina ñi nga xam ne ñooy électorate si maanaam ñii di dem war dem ci bañ gàcce yi ngir rek daal di sànni seen i xob wala daal di rek tànn seen njiit ñoom nag mu ngi leen di artu ne nañu moytu képp koo xam ne dafa ñëw ngir bëgg jënd li nga xam ne rek mooy seen baat ndax nag seen vote card boobu mooy seen baat te nag waruñu ko rek daal di jaay moom nag muy daal di ñaawlu euh, bu baax a baax li nga xam ne nag moo di ñenn ñuy tàmbali jug di jënd li nga xam ne rek mooy ay vote card ngir rek ci jangante yi ñu jég dëgmal si ni nee na loolu jekkul jaaduwul waaye dafa ñaaw euh, ci réewum euh, démocratie Amadou ñu jàll ci beneen xët mi ngi noonu lu màgg moo fi xew démb ci réew mi euh, njiiti réew mi euh, doon rek daal di daloo lu toll ci juróom-ñaar fukki euh, poos loolu nag mu doon loo xam ne lu màgg la ci taarixu réew mi juróom juróom fukki ak juróom-ñeent yi nag dañu ne ci public transport bi lañ koy teg waaye yeneen fukki ak benn yi yooyu nag dañ dafay nekk school buses loolu nag lañ daal di xam ne njiiti réew mi nag ci ndaje mi ba muy àddu nag daal di na xam le ne bile li nga xam ne rek moo di boos yu ñu daal di rek jënd nekkul loo xam ne ne rek accident la wala lu lu ñu waajal la tey nag ndax am na yoon yu bëri yu nekk ci réew mi yoo xam ne noppi na ak yu ñuy defar ngir rek gën a yombal dem beeg dikk bi moo waral boos yi la ñu daal di ko rek indi te nag dina gën a nguuram gi dina gën a teg tànk ci loo xam ne dafay rek gën a ñoŋal dem bi ak dikk bi ngir rek mu gën a yomb ci réew mi amru ñu jàll ci euh, beneen euh, xët ci biir euh, yëglekaay bi di standard gis nga ñi nga xam ne ñoo di pipeline mosque foundation daal ñu joxe lu toll ci juróom-ñaari téeméeri darab muy bedsit ci rek hôpital yu mag yu nekk ci réew yëpp loolu nag ñu ngi ko yóbbu ci fi nga xam ne rek moo di Kanifing General Hospital ngir rek ñoom ñu mën koo rek séddale ci yeneen hôpital yu mag yu nekk ci réew mi yëpp ngir rek jàppale leen loolu loolu nag ci xayma gi toll na nag ci li juróomi téeméeri junni ak lu teg teg ci rek bu ñu xaymaa li xam ne rek moom leen def ci darab yu ñu rek jënd noonu ngir jàppale ko ñi nga rek ñoo di hôpital yu mag yu nekk ci réew mi amul. amadu ñu tëj standard ubbi euh, forea forea moom it xëy bind lu yaatu euh, ci xarxana mu yëgle kaayam bile su ko defee rek ñu ànd ak ci yéen euh, ci xët wu njëkk wu ñuy rek daal di ubbi. mi ngoog Amadou euh, ki nga xam ne rek moo di njiital languk UDP gi moom nag seen lang gi daal dinañu rek bind euh, wala xaatim li nga xam ne rek moo di ab pétition euh, di jëmee ko nag ci fi nga xam ne rek moo di IEC seen returning officer bu nekk foofee ca Janjanbureh Janjanbureh constituency ngir rek ginnaaw ba nga xamee ne dafa dàq maanaam rek disqualify ki nga xam ne rek moo bokk ci ñoom ginnaaw ba nga xamee ni seen candidate bi ñu taxawaloon ca Chairman Ward dafa withdraw woon am ku ko bëggoon replace nag waaye. ñi nga xam ki nga xam ne nag mooy si seen returning officer ba nekk ca Janjanbureh euh, ginnaaw ba mu rek daal di euh, boobu la rek daal di koy disqualifié loolu yi nag tax na euh, pétition la rek waa UDP daal di rek sampu ci rek bëgg loolu yi ñu daal di ci rek dellu ginnaaw ngir rek seen candidate bi nga xamee ni rek dañ ko rek daal di disqualifié. amul ñu dem ci beneen xët bi nag mooy xët bi mujj ci yëglekaay bi ginnaaw coow li doxoon ci diggante Duusaano ak borom dëkk bu saare euh, talaata foofee ca URR euh, moom nag mi nga xam ne mooy rek euh, mbaalo démb nag dañ ko rek daal di samoonoon gofano bi moo ko wolu woon ci gofano bu URR bi damoon na ca makkaan bu foofee dugg ak moom nag bu ñu sukkandiku ci yëglekaay bi moom nag am na fa lu toll ci fanweeri simili yoo xam ne mi ngi ci biir gofano office bi doon waxtaan lu jëm ci Euh, diggante euh, bi doxoon ci euh, moom ak li nga xam ne mooy Duusaano di xelalkatu njiitu réew mi maanaam presidential adviser bi mu génnee nag Forea ki leen fa teewaloon nag mu ngi bëggoon a wax ak moom waaye nag bu ñu sukkandikoo ci Forea li mu leen xamal mooy du tontu ci mbir mi ndax nag dañ ko tere ngir rek mu daal di ci addu loolu daal la daal di xamle waaye li Forea wéral daal mooy gis nañ ko moom mi nga xam ne mooy alkaali mbaalo di alkaali maanaam borom dëkk bu saare talaata dugg na ci makkaanu fi nga xam ne rek moo di gofana boobu te nag waxtaan bañ doon wax jë seen jafe-jafe bu doxoon ci diggante mag euh, du euh, sànnala woon ak wax yi nga xam ne rek moom euh, daal dina ko ci rekk yëkkati amadu lii la yëglekaay yi xëyoon fësal tey su ko defee rek ñu daal di koy tëj